waaw dawal YouTube nga bind Khelcom Production nga abonné te bés cloche de notification bi mën a jot bépp vidéo dollee sant Serigne Touba Khadim Rasoul ñi ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu du ma faya ok bu ngeen ma fayut dama yaakaar da ngeen ma mere alxuraan danoo jàngaloon ni wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha kon njàng mi foofu lay tàmbulee buñ la nuyoo na nga delloo nuyoo ba ci nu gën a rafet nañ la ko nuyoo wala boo ko mënut lañ la wax nga delloo loola wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina fa qul salaamun aleykum waaye noo ngi sant sëriñ Touba di ñaanal saahibul fadila alxalifatul am li taaifatil muridiya borom Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke sun borom yàlla na ko fi gën a yàggal te dolli ko ak wér mottali yéeneem ci taalibe yi waaye mottali yéene taalibe yi ci moom naa lii lépp bu ko ci kenn yeggaleel dara yàlla na ko yeggaleel boppam tañ ànd koog moom di ko ñaanal alhaaji abul baraka ibnu Cheikh Mahamadou Fadil ak mboolem njabootuk sëriñ Touba gépp ñu ngi nuyu mbooleem ku teew ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi sëriñ Adam Mbakke moom sëriñ Saalix mu Cheikh Mouhamadou Fadel di kilifa ak jataay bi waaye di ci teg rakkam ji mu fi fekk di sëriñ Cheikhouna Mbakke moom sëriñ Jiili Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Fadel nu ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Mbakke moom sëriñ Tahir moom sëriñ Falilou nu fi fekk fekk fekk fi daal jataay bi saf-saf ak sëñ Fallou waaye fawuma beral ab nuyoo ak cant ak ngërëm sama xarit sama soppe sama lépp di sëriñ Salih Mbakke mii moom Cheikh Abdou moom sëriñ Salihu moom sama xarit la te Don gim ko donit sama responsabilité la ci jël diko wax ndax diw sama xarit la dafa graw ndax fuñ ko dugal rek dañ la fay daali duggal dugal xam guma xam ci ne lu bax rek la nek ak bëgg señ touba motax fuma taxaw man na wax ni sama xarit la ak mbollem ay rakam yep, di nuyu serigne salih mi nga xam ni waxtane nañu pastéefam ci serigne touba ci auto bi bi ñuy ñëw sëriñ mi mii mbay moonu wax ni ko am pëseef la ci sëñ Touba ak xaside yi wax nañu ko léegi ci oto bi loolu nag noo ngi ciy santaat sëriñ Touba sëriñ Saalix nag daf maa waxoon ni bu nu ñëwee ci jataay bi nañu waxtaane sëriñ Touba man Ahmadul Bachir nag wajaani shafiu bi tabsiri ani xadimu nuri wal bashiri bu may waxtaane sëriñ Touba képp ko xam ni jàppoo ni sëñ Touba tiim ñëpp nga xamni amut kumi gam-gam lel, yow man yewé ko ndax do fi deg ben bat bu la neex Ah, lu jotaay bi yag yag dégg nak tok ci jotaay bi du force kep ko xamni meuno deg seigne touba tim ñepp yow yewé yeeweekul yow jotaay bi du neex ci yow wacce seigne touba ngir bëgg ku comprendre duma ci fekk ku meuna yek nu dem nga yek nu dem ku ko meunut nga dess fi xaar nu ci kaw jëm واي سن بي توبا قادم رسول دفا وخني من سي عمرو بامبا سامك تخي لول دفا كراو ها سن نينا فلاحي سامك تخي نينا يالا تي بوبام مو داجالي كوريلم كي دي نت نيت تخي من خادم رسول اهذا الباقي حماني شكرا وعند جنده فلاه ذكرا سرين توبا نينا شيخ احمد بامبا خادم رسول القطب الاعظم الجامع الاوصاف المرديه والتقديم الازليه والمنهج المحمديه محمد ابن محمد ابن حبيب الله مكي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كاري جامي خادم رسول نينا ci biir alwara laa nekkoon alwara nag yégal yaara kenn génnu ci alwara mooy mbindeef yépp sëñ bi nee woon maa ngi woon ci alwara jërëjëf jërëjëf sun borom tabaaraka wa taala moo xool ba yàgg baatum nasu muy nasaa nocc na xam nga nocc mooy lan nocc bokkut ak génne génne mooy li nga génne ci sa poos mën nga ko jee génne ndànk mën nga ko jee génne bu baax bokkut ak nocc nocc mooy li nga génne génne gu ànd ak doole mooy bif ndax bo demé ci alcorane sax bim lay wax ngour ne la qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasa wa tansiul mulka la wax yàlla bu moy joxe ngour waye bu koy joxe bu koy jël da koy notch ngir xamna ni ngour dafa neex te nit ki man na cee langaamitu moo tax buy notch ngour ci président da koy bif seigne touba neena yàlla bi may génn ci minde fi dima xamal ni yow bokko ci daf ma daf ma bif ne ma toogeel nee mu ne nasaani minal baraya samadu wara al waral al qadim tayit lim leen jangal ci man nga xamni ni la seen xam-xam ci man Serigne Touba yam kon xam xam Serigne Touba mana na romb fofa waye liñu xam ci mom fi suñu xam-xam man yam moy allamahum bi annani al abdul Khadim. yalla ma genn ci ñom ba xamal nopi xamal leen ni may abdullah wa qadim rasul do aw tur nag de dedet ab garat la bu yàlla di takkal ku ko soob xaadim rasulullahi du ku xëy dana géyal yonent bi ak a contrat ñu mën laa wooyee xaadim rasul déedéet ab garaat la garaatu abdullahi yàlla moo ko takkal yonent yàlla isa mu judduwaale ko ne inni abdullahi ataani al kitaaba xaadim rasul nee na atum saraxa laa feeñ bi ma feeñee ci saraxa lañ ma jox garaatub isa ak Moussa ak Muhammadu Rasulullahi ak Ibrahima Xalilullahi ak yonent yàlla Nuuhin te ñooñu ñooy ulul asmi mu ne saraa lakum min addiini maa wasaa bihi Nuuhan wa lazi awhaynaa ilayka wa maa wasaynaa bihi wa Ibrahima wa Moussa wa Isa an aqimu diina qad wulida alxadiimu man qad saraa sariatal muxtaari ama sharaa kon dama bëgg ngeen xam ni Sëñ Tuubaa bokkul ci ñooñu yàlla takkal ko garaatub Abdullahi jërëjëfati delloo nañ ko bu wér xaadim rasul ne inni lahoo xabdun man maay jaamub yàlla bi nga xam ne garaat bañ tëkkaloon Isa mi ngi ci man léegi garaatub ibrahima xalilullaahi muy garaatub xalilullaahi wattaxada allaahu ibrahima xalilan alquran a ko wax loolu garaat la sëñ bi nee na yàlla takkal na ma ko ci bi ma ganee jamono te ma dara mu ne waxillun نكتة قرأت بخليل الله لمي قرأ وقرأ أمن بينن قرأ قرأت بكو جن قرأ ومي حبيب الله لول يرن تبيك تك إبراهيم يقول فوفا سنجباني نمن قادم رسول الله تكل نمكو من وخل حب دني وهو لي خل وحب الرب وين بيدرون بين مقامه مي عبد الله مي خليل الله مي حبيب الله te nee na ni ma ab xarit non la mako yalla yàlla man sa Amadou Bamba khadim sallallahu alaihi wasallam wa jamni ko fi gis nak moy ñangal ñangali bopam nan di nga man xaritu bi yalla la nang waye yalla def la ab xarit kok sëñ Tuubaa la akum ah neex nag nga neefina yalla duggu ci sa kër ray sa taw ci guddii te yego ci dara bañ yu xoko nga ne lu xew ñun la sa taw de nga ni yalla kim doon ab xaritam moy ki nga xamni ruhuk ak talibem sax balako jël da koy moy khadim rasul dama bëgg ñu xam ne sëñ Tuubaa bokkut ak ñi nga xam lu waay garaaw garaaw ba nga jàpp ni waxuma ko nag ci moom laa tàmbulee maanaam koo xalaat mu garaaw ba nga naan ah kooku moom sëñ Bass waxu ko mu xanaa boole ci moom laa tàmbulee mi ngi ci biir inni lahoo habdun waxillun xibbu wax wali xillun waxibbu rabb maqaama moomu tax mel ni góor yàlla yëpp dañoo yitte woo woon xam lan mooy maqaamam Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul سنج با داني غابت مقامي يالا نيكو تونتول يالا موني سنج بي تونتول مونيكو لوماي تونت مونيكو نينين سا مقام يو سنج با كودول من يالا مونوكو خام سنج با ني غابت مقامي عن سوى الباخ الكريم وانني حد خديم لا يرم موتاخ شيخ سيدي بابا دا فا واي اي بيت سرين توبا واي كو واي يوري راكام ديكو ياد نيكو بيت ييغا واي سرين توبا su fekkoon ni warees na koo way nit sax wareesu koo way nit ku ñuul yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko war a way te wareesu koo way nit mag ji ne ko teeyal te nga dugg xalwa ndegam waliyu nga waliyu la nga seet maqaamam Serigne Touba ba xam mooy kan ci gaay yi nee na mu dugg xalwa am 40 jours mbir fekk ko fa mu doon duggee xalwa ne ko cas jug ak moom. bismillah jërëjëf. di dox moom ba ci pays ba mu daan yam. moom am na pays bu mu daan yem ci pays suñ borom yi waaye comme mbirum sëñ Tuubaa lay seet dañoo weesoog moom pays ba mu daan yem dox ak moom lu mat juróom-ñaar fukki junni pays ci kaw nee na ci laa soogo fekk menn mbaar mel ni nii nu tooge nii ci baas bi nee na mbooloo mépp ne gorom toog ci suuf nee na ma dikk ne asalaamualeykum ñu ni ma fii loolu doonu fi ay teggin fii moom amut wax da ngay dikk rek toog mu toog nee na maa ngi seen benn sées ñu teg ko ci digg bi muy tourné waaye kenn toogu ci maqaamam sëñ Tuubaa nag lay laaj nee na ma ni teg mbooloo mi ne teg ma ni teg mbooloo mi teg ak ñu ne bismillah defar len toogaay ñëpp toog nee na ma seen ses bi japp ne sëñ touba ci tok neena ma seen Cheikh Ibrahima Fall babil muridina may sa bi Kumba Fall Ahmadou Fall Sayar jay biram ñepp ma ca ngaay góor jëpp bàyyi lala Fall maami Cheikh Modou fall Fall ak bombar gi wekk wolu gi daj depp gi maami gor ñi ak jigéen ñi jëkkëri gor ñi serigne serigne ci talib sëñ Bamba bi yaakar ku yalla bin tam nara a texe aw abakar cheikh ibrahim ñoy ñew ni ngeen jëf adi ah, cheikh rafal ndaysan yalla ya khadiru ya muqtadiru aman ilayya juduhu yabtadiru Ya lau ya Qadir ya Muqtadir ya man ilayya juduhu yabtadiru najaytuka al-yawma وقبل اليوم لجهلت الفطر فوق صومي loolu maa la ko mosal ci wakkaana xaqan bi nga jox ma maa la ko ci ñamal tuuti fi ne nii ma safee xorom nii rek ci murid yi da ni saf xorom daa yomb da ngay bëgg sëñ Tuubaa mbaa doo saf xorom fi ne saf xorom ab sart la ca bëgg sëñ Tuubaa loolu da ngay bala ngaa mën a saf xorom da ngay bëgg sëñ Tuubaa loolu ku bëgg a saf xorom bay bon nga waale ci xel moom ok nee na moo toog ci kaw canapé bi maraam dikk ne ko maqaamam Serigne Touba laa doon laaj mu yëkkati loxoom teg ci sama gémmiñ ne ma maqaamuhu anil kaw ni ghaibun maqaamam fàddu na mi def ko xam sëriñ Tuubaa ne sëñ Moussa Ka ne maqaamam sëriñ Tuubaa amul xawsu buñ ko may wa yaxluqu maa laa taalamoon ay sëriñ Tuubaa maqaamaatu axtaabit dahaariri kullihim ku leen boole woon peeseeg maqaamam sëriñ Tuubaa mu wat leen ci ay mbootam te wat leen ci ay natoom te am naa ci ay tegtal yu wér ngir dem ak Tuubaa sëñ mu Ka nee na buñ jëloon maqaamam mboolem waliyu yàlla yi waxut waliyu xutbu yi la wax ñi ma sa moom jamono teg ci balance jël maqaamam sëriñ Tuubaa teg ca beneen balance réll jëf waay di ko dégg moo tax mu ne maqaamaatu aqtaabi dahaariiri kullihim mbooleem xut buy seen jamono yëpp bu ñu jëloon seen maqaam teg ci balance jël maqaamam Sëriñ Tuubaa menn bala teg ci balance mu religieux fooy toll di ko dégg kooku loolu lañ ko tontu waaye Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax ni Cheikh Ibra Fall moo nett lii may bëgg a wax nee na garaatub Xaadimu Rasuul néeg bañ ko tëjoon magasin bañ tëjoon garaatub Xaadimu Rasuul góor yàlla yi rang kenn ku ne jàpp ne yaay bi. suñ borom ne ku jël caabi jee dugal ko ci buntu maa nga seen biir tijj ko lu fa nekk may naa la ko lu garaaw a ngi noonu góor yàlla yi rang Cheikh Ibrahima nee ah, mbay booba maa ngi toog dama ni góor yàlla yi rang laa wax nga gis ko rang dikk ne cas caabi ji yëkkati ko ba mu toll fii mu tudd yàlla teg ko ci suuf xam ne àttanu ko mu dem toog nee na ñu toog ba yàgg nga gis geneen góor yàlla jug bàkku dikk ne cas caabi ji yëkkati ko teg ba ba mu tolloog oomam mu tudd yàlla teg caabi ci suuf xam ne attanu ko nee nga bu ñun ñëpp jeex Cheikh nee na maa doom ne ko cas yëkkati caabi ji ba mu tolloog sama dënn ma ne ko tegg tudd yàlla doom woon la waral asma bi <coughs> waaye ba tey jugut ci la nu ne gorom seen jëmm ju tuuti mu bokk lam bokk muuloo wa kaala gu weex dikk fekk fi suñ borom teg caabi ji mu ne ko cas ruuf ci baaraamu sàngale ñam bu ndaw bi yëkkati ko ñetti yoon ñu di ko xool mu waaxu ba ca buntu ba na yàlla lakkal xasaa inu yaa moom magasin bi suñ borom ne ko fa mu ne ko faftaal yi ubbil ma buntu bi ne kàcc suñ tubaane xasaa inu rabbi futihat lii wa saasaat li xayril asaadun yaa waxuraa wa barsaxoo ma ne islaam dee su la jàlle genn gaal say du sa bi sëriñ Tuuba xaadim borom màggal gi ma jokkañ waa jadaan way ngan gi yoneen ba yoneen fal ko mooy xutbul li tax way wi wolof te waroon jiyaa ñetlay jaloore di sulle ay ndam di ba xarba ak yu tax ñuy xabaroomam ca xet yàlla ba xam nan maqaamaam ca xarbaax yaak ci mi yaak xabaroomam ca wàllu yaak ca xawsiya sax fa diiwaa